di nuyu Gaston production di euh, nuyu fidèle supporteru Balla Gaye yëpp ak am di jàmm yi ak soppe yi rawatina si tamit école de lutte Balla Gaye vraiment sant ñu fi teew ñëpp ñu ànd ak ñun di liggéey boobu ba léegi ci combat euh, rawatina waa Guédiawaye waa Casamance ñi nga xamante ni waa Guinée Bissau rawatina daal supporteeru Balla Gaye de yëpp ñu ñaanal sama sëriñ suñu Bassirou Bara yàlla na yàlla yokk leen taal bi barke ñu nuyu xalifa diine kulli murit ñu suñu taxaw mbàcc ñu ak njabootu moom Sarafa bu Kunta Njaasaan maam li maam laay bàyyiwuma kenn ñeseen xaadar laayeen bu ma limee daa jóg ba Tiwaawan ba Tiwaawan dal di bëggee ñëpp rawatina nak école de lutte yëpp boy yi fi nekk mak ndaw encadreur yi ñëpp duñuy Abdou Aziz Massata Mbaye Diop Talla Mbengue mur Fall Simon ak Cheikh Mbacké ak euh, ak euh, Omar maa ngi nuyu ñëpp daal mu limi naa jiw waaw maa ma ngi bëggee ñëpp Lamine na mo ngi nuyu ñëpp mm-hmm. Omar yaakar na ne sa combat ak Gris mom du lu bees mm-hmm. lu ñuy defarat lu ñuy teggat la bëriwoon ngeen 2018 yàlla mayoon la ndam ci koom ngeen jëmaat ci combat diggante bi li fi jaar bari na Lamine mhm. jëflante jaar na fi amité jaar na fi ba tax na sax ñu bëri di dute ci ne da ngeen a ragalante mais balaa may ñëw foofu Lamine li ñuy njëkkee mooy Balla tey da nga ñoo nangu tawan ci sa bopp lu bëri mhm. ndaw rek nga nangoo def lan moo tax looy nëbb non lu ci ne ba mu fi hmm. xam fii tey dara xaju fi ñu sew sawaan rek moo fi xaj mooy daw yeeg affaire yi demee mais xam naa dañuy jàppal jour ngeen ñëw saal ñu fekk xool liggéey bi bu baax wala ngeen fekk ñu dîner wala ngeen fekk ñu ci plage bi kon donc fii mun ñu fee dara def dara mais fii suñu base la dem leen te dikk waaw dem leen te dikkalante am na fi ba tax na ñu bëri jàpp nañu sax seen combat bi est ce que dina est ce que dina mel ni bu njëkk ba na meloon ci sa safara tàngoor ak metti metti waaw boo ko xam nga amitié moom donc ça aussi contrat wala tënk leen ngeen bokk métier loolu ci beneen domaine la domaine ñu nekk nii dañoo nekk ci contrat boo xam ne c'est pour la allah di ci ñaan yàlla yàlla nañ ci ndam amitié actuellement moom dañ ko jël tegee ko nële li am mooy sama contrat la moom Gris Bordeaux te sa production ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci bis bi ñu bërëg moom xeex ak moom daan ko jël bu rëy daal ñibbi si kii bëre xeex daan jël bu rëy bëre Gris Bordeaux xeex ak moom daan ko jël bu rëy noo koy defee ak ci ban façon nga koy def mais ci anam yi ngeen ñu fekk ñu ci nekk xëy war a liggéey xëywaat war a gont xeet war a nekk ci li ngay nekk say box ak say entraînement ak loolu mooy may ndam te tout le ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey boobu yaakaar naa ne incha allah bu jour bi dañu ko yàlla may ndam. mais bu ma ko déggee ker dama ko jël ker kera waxaat na la ko mu ne mënoo bari moom cinq mm-hmm. moom moo ko wax. Mm-hmm. wax joj da koy répéter tout temps do beure 5 minutes yow nga ne ko bu la nexé bés ba ne ku ne ray nak këram ñu togg reer ku daan inviter sa morom lu tax ya, nga tontu ko lool wa mais xam nga bu mu ñu man mu ma beure 5 minutes loolu xëy na peut être day bëgg lu nex bopam mom hmm. parce que sama combat bi moom bi passé yaakaar naa ñaari quinze yu ya yaakaar naa wa waaw waaw runkum daje kang kang kang kang kang daw ma génn saaku naanu ma ndox def ma dara bayyi ma donc li ci am solo dal man xam na ne man ni ma bëggee mu neexee ko moom bëggee ko mu neexee ko parce que ma yaakaar ne man al bu sifle day yooru day ñëw jébbalu hmm. man loolu laa gis moo tax mu yokk ay yokk cinq mille ak cinq mille man signé wu ma ak waa ay cinq mille ak ay quatre mille hmm. soobee yàlla ba bi sifle damay dox ci kaw ba fexe ma dugg bu bëri ma moom Gris moom Gris Bordeaux Ibrahima Ndione Ibrahima ma leeral la ko moom Gris Bordeaux Ibrahima Ndione Ibrahima Ndione wala Ibrahima Ndione wala Ibrahima Diom Ibrahima Diom Diom ah waaw leer man la xam nga tur de ah mais ñëpp xamante nga ne bu xexé mu duma ko su bëree su xexé nga duma ko su bëree nga dal bu soobee yalla bu xexé mu duma ko bu bëree ma dal c'est sekkuma ak mom ak wala sama c'est sekkuma ak sama supporter ay lamb ji fi jël na ay 5 minutes la ak ay 3 minutes lepp lu ci war bu soobee yalla mom bu mu def dara man ma koy def dal hmm mais ak mom ni mu la ñimee ak ni muy taxaw ne yow buy ak mom do nek à l'aise yu mu di la ko wax nga yaakar giri tegul ay mbiram fu leer wala non giri ñëmee ma hmm ah. giri ñëmee ma man may bëreeg giri boro bay nekk à l'aise moom moom moom moo nekkul à ah moom moo newul à l'aise. moom moom moom sañ te nekk à l'aise sax. waaw moom sañ te nekk à l'aise waaye man li ma wax dafa ne dama ne ko. waaw sañu maa nelaw parce que dama la bëgg a daan. waaye moom sañul nekk à l'aise bëri baala ngay def. Mhm. ah déedéet. nek nekk à l'aise. jamais. tamit bi. duggul ci yàlla maanaam duggul ci yàlla. ba nga xam ne yow mënuloo ko dara ci gan non sañoo nekk à l'aise. nañu gis Balla Gaye soo doon am combat coono bi doon bëri doon nañu gis ah, mu génn ci Instagram wala YouTube mm-hmm. mu taxawee léegi gisuñu Balla Gaye mm-hmm. même statut gisuñu Balla Gaye du mm-hmm. moo tax loolu combat bi moo jar moo laaj loolu wala ci li nga jógee samay combat yi des moo laaj moo laaj euh, ci concentration soo lañ nekk peut-être yàlla moo ko tuddoon mais lépp lu ñuy defati incha allah. dinañ ko nëbbu. dinañ nekk suñu préparation bu laajee neexal ñu neexal ko bu laajee yëngal yëngal ko waaye. dootuñu génne suñuy vidéo pour ay entraînement léeg-léeg nag mënut a ñàkk bu combat quelques jours voilà deux ou trois jours ñu génne entraînement yi wane ne mais doonatul lu ñuy liggéey di ko bazar hmm. Hmm. lan moo waral lool parce que gis nañ sa combat boobu ji bi passé hmm. ba ci veyu combat bi dañ doon vidéo ba nga di dem sa bopp di watu vidéo yi dañ doon génne lan nga combat ak boobu ji ba tax ci lu bëree bëri wax dëgg yàlla ci encadrement ak ñi nga xamante ne ñi donc daal yàlla booy na ma ñoom ci bëri daal yàlla suñu borom mën na ci loo xamante ni may na ma ci expérience te àdduna lépp loo gis aussi tamit jàngat jàng naa ci dara aussi bu ginnaaw ba nekkee nag wax dëgg yàlla tënk sama bopp dañ ne mbër bi loolu maa moom ngi loolu maa ngi toog bu su bu jour ba allah ma ñëw wane confirmation bi leer loolu mooy sama objectif ak sama encadrement ak ñi nga xamante ne maa ngi wax ak ñoom su war doon di dugg le jour ji confirmation incha allah. Mhm. Balla daan na nekk na champion bi nga xamante ne saa yu waxee avant. Mhm. da koy jëfee. Mhm. joxe une seconde day def une semaine su waxee ni damay duma daan da ko doon def. mais combat bi nga jógee nii waxoon nga ko jëfoo lan moo waral loolu ndax bii yoon dinañ gis ba Balla Gaye 2 li mu wax mu jëfee ko. waaw xam nga léegi bëri Balla Gaye 2 gars dañ koy def. Euh, comme par exemple tey Balla bu war a ñëw bëri yow nga war a ñëw bëri bëri ñaar moo ko def mais bu arbitre sifflé nga taxaw itam taxaw nële bu ma ñëwee taxaw di bëri yow ngay daw wala di déplacé combat bi day day yàgg dama ciy def sama devoir ba nga xamante ne rek war naa laa daan daan la mais bu arbitre sifflé mu ñu taxaw runkum daje non du yàgg parce que xam ne yow mi kat ñëw nga pour bëri wala ñëw nga pour xeex mais boo ñëwee sama combat bi passé ki may bëreel puusul paasul fu mu taxaw la taxaw donc moo tax mu demee noonu te loolu du làmb làmb ñaar koy def ñu ne tey kii mën bëre moom déjà boo ko mënee pare jeex na